mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen ndokkeel eh, di leen baalu àq di baalu àq jëpp rawatina weeru saxbaan yi nga xam ne dugg nañ ci di weeru barkeel ñu leen ciy ndokkeel bu baax a baax ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawféex di ndokkeel jullit yëpp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñu am mbégte bu baax ñëwaat ci seen scène bii di MKTV di seenu muqaddimatul xidma bi nga xam ne moo yor jumaay Touba ak tamit seen bi nga xam ne mooy GMTTV muy grande mosquée de Touba ngir euh, émission bi nga xam ne dinañ leen koy amal ci weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàgganteku bi nga xam ne miin ngeen ko ci seen yi ñuy indi ay laaj laaji diine yoo xam ne dañ ciy gàgganteku di ci ànd ak ay boroomi xam-xam ñu gën cee ràññee nag Serigne Mbacke Abdourahmane Euh, ñu ñëw fii ci Daaru Salaam ndaam ngir ñëw jébbalaat ko tamit euh, laaj yi nga xam ne bokk jullit yi ak bokki taalibe yi yónnee nañ ko fi ngir di ci fas yéene gàggantiku ci seen diine euh, ngir ñu laabiri leen ci luy jagal seen àddina ak luy jagal seen ëllëg ñu ngi leen di sant ci ñaan yi ak kàddu yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy yónnee di ko yóbbante ci sëriñ bi di sant yi Sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sëriñ bàcc ba mi nga xam ne mooy sunu caméraman kon sëñ bi ñu jox la nga nuyoo ñu jublu ci waxtaan wi aousubillah min alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi teewlu ëtt bi te leen ziar leen ci sunu kilifa gu mag gi sëñ Mouhamadul Muntaqa waaye di siyaare mboolem waa daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay yi ci njiitul al imam sëñ Afi Ahmad ngi siyaare mbokk yi topp jotaay bépp di leen ñaanal jàmm ak àllaaxira di sàkku ñaanal ñu sëriñ bi euh, ñu ngi nuyu bokk yëpp rek euh, bari na yóbbante ñëw waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di delloo seen nuyoo ak seen seen siyaar ak seen i ñaan jërëjëf bokk bi dafay laaj mu ne daal ndax dana war ci góor gi nga xam ne dafa am ñaari soxna tukki ba mu yàgg daal di dellu si ñëw ci ab tukki maanaa ndax léegi nan lay def ay gi maanaa ndax day tàmbulee ci ki mu jóge woon tukki wala day ñëw ci ki nga xam ne eh, ci ci ci ci eh, ci ki nga xam ne moom la fi bàyyi woon maanaa maanaam ci aawo bi lay tàmbulee wala day day tàmbulee ci ki nga xam ne moom la jóge woon tukki maanaam nan lay def daal bu ñu bisee ci tukki. bu ñu bisee loolu la bëgg a xam fi mu yemoon tàmbalee ko. fi mu yemoon rek. masalan bu fekkee day koo xam ne par ñaari bis la ñuy ayeloo. Mhm. am ci ku aye. mu nekk ak moom benn bis. Mhm. dem tukki bu dee see na ko mottali bisam. bu fekkee kenn ki matal na ñaari bis mu dem bu dee see na tàmbale ci ka ca des. Mhm. Mhm, jërëjëf mbokk bi dafay laaj mu ne euh, dafa am jàkka joo xam ne daal dafay dafa dafa gis ne ñoom bala ñoo julli timis la naafila dañuy la njëkk ñu julli timis mu ne ndax dana dagan man mi nga xam ne du ma def loolu ma jullee ci jàkk jooju wala de daal nekku ci ndax loolu am na ci waroom xam ñu ko wax ci hmm. mazhab Maalik ñoom ñooy wax ne hmm. waxtu timis dafa xat hmm. njëkk timis kenn du ko naafil am na yeneen ngër yu ko wax te ñooña bu ñuy jullit boo nekk ci barab boo xam ne ñooñu ñoo ci ñoo fay jiite dañ lay sant nga ànd ak ñoom moom li ko mës a wax mën naa bañ a julli ba naafil ba julli timis ba noppi waaye tekki woon nag ne jàkka ji dañ koy def rek kon du woo fa julli timis jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy atteb safaak wiitar ak ndax na manees naa wuutal yeneen naafila ci safaak witar wala dafa sa dafay sart ci nga def safaak witar daal comme niñ ko diglee waaw saa weesu moom ci sunna witar ci boppam rek suñ mhm. naafila yi gën a dëgër yi gën a feddli ko dañuy wax sax mu gën a feddli ci naafila yi ñuy mhm, mhm. moom nag dañ ci sart safa jiitu safa gën jaa néew ñaar rakkaa lay na ko ëpp na nga jul rakkaa yu bari jublu ci safa waaye li gën a néew rek moom mu doon ñaar rakka ci mazhab bi dañoo taamu nga jàng ci fatiha ak suratul a'la ci rakka bu njëkk bu ñaareel Fatiha ak suratul kafirun raka bu mujj bi nga sëlmal indi benn raka jàng ci lixlaas ak falax ak naas loolu moom euh, bokk na ci naafil yi ñu gën a santaane yoo xam ne ginnaaw gi yàlla tàmbali ba fa jar boo dee yeewu guddi it ko moo gën hmm, booy naafila dal bu fekkee surtout da ngay bëgg da ngay naafilaat ci guddi gi hmm. ndax mujje ko moo gën mujje nag da koo xam ne yoo xam nga ne boo tëddee nelaw mën naam doo yow fajar jotul hmm. kooku bala ngaa tëdd na ko def waaw mm-hmm. boo boo ko fàtte woon ba yeewu fekk noonu fajar jot waaye jullee guñu suba tam xaj fa mm-hmm. waaye da nga ko da ko def mën nga def safaak witar waaw mën mm-hmm. bu xatee nag nga bàyyi def safaak witar moo gën di ko wutee yeneen wutal yeneen naafila nit xam nga naafila boppam la mën nga ko def ba noppi def yeneen def yeneen waaw waaw bu fekkee a da nga koy mujjee dafa yooyu ba noppi comme ramadan masalan naafila ji koy def ba noppi mujjee safaak witar bu fekkee da bëgg a ci guddi gi mën ngaa def safa sa fukki rakka masalaan mhm. safa bay tari di nga boo yeewoo ci guddi gi dafaat say tahajjud mhm. bay jeexal nag te jëkk safa bay tari mhm. kooku man la mooy li gën waaye moom naafil la gu feddlikul goo xam ne sunna yi ñëw yëpp moo ci gën a feddliku euh, euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy diirub ki nga xam ne euh, al mafquud la maanaam maanaam ki nga xam ne borom këram dafa dem maanaam dañ dafa dafa réer dafa dem yàgg ci tukki lool lan mooy diir bi nga xam ne soxna si war na koo xaar euh, ngir ñu war koo dencaat ak lan mooy am atteem su fekkee dafa bàyyi alal naka lañ koy séddale waa xam nga ki ñuy tudde mafxuud mooy ku jékki-jékki xamutuñ ci moom dara mm-hmm. tukki woon na réer mm-hmm. bu dee ci ni mu baaxoo am fi nga xam ne réew moo xam ne ci jàmm la dem mm-hmm. daa jékki-jékki dara tukki woon dëkk sàngam dem nañ yàgg xamutu ci moom dara ña ko daan ni daan jaxasool kenn déggatu kenn gisatu ko soxna si mu bàyyi bu mënee muñ ci ab dund na fi kooku kooku la ñuy xaarloo waaye ki nga xam ne gis na ne mënta muñ loolu ci ab dund wala bàyyi fi ab dund day dem ci yoon ñu tas sëy waaw yoon da koy tas mu iddawu idday ko ñu was fa fase ñaata at kooku du xaar laa moom bu demee ci yoon rek kooku xam ne moom kat borom ko dem na xamutul ci moom dara ñu vérifié xam ne lu dañ koy wax ne ko fas tas nañ sëy bi hmm. mu iddawu bu iddaje jeexee mën naa sëy feneen hmm. bu sëy woon feneen bu borom kër ba wéet moom mhm. jëkkër ja feeñ day ñàkk bu wéet moom nag bu feeñee jël jël soxnaam mhm. kooku mooy ki nga xam ne daa borom kër dem na te mënatut a muñ mhm. hmm? xawuti moom dara yoon sañ na ko tas si tribunal koo xam ne nag mu des koo xam ne nag moom mën naa muñ te lu ab dund mang fa bu ñuy dem bàyyi na fi alal ju muy dunde kooku la wax ne bu bu yëglee ñu wër réew fa mu demoon gëstu gëstu xawut ci moom dara dañ koy négloo ñeenti at bu ñeenti at di jeexee dara feeñut ñu ne ko léegi tënjal jàppee ko faatu bu tënjee ba noppi nag sañ na say feneen bu ko defee alalam nag moom kenn du gaaw miraas buñ ko miraasee ba pare tam dellu si lay wax kenn du gaaw miraas bala ñu ko miraas dañuy xaar li ñuy wax muddatu taamir dañ naan dañ dañuy nekk ba mu am juróom ñaar fukki at ak juróom loolu ndax gaa fu mu nekk mhm. ci àdduna masal ba muy tukki am na cinquante ans mhm. dañuy xaar vingt cinq li nga xam ne daal moom mooy. mu dund xaaree vingt cinq ans nag dund waaw. waaw maa ngi jàpp ni gudd fan daal du sori foofu. Mm-hmm. suñ xaaree loolu te ñëwut boobaan mën nañ ko miraas suñ ko miraasee ba noppi nag. mën a jalañ ñëw mm-hmm. day jëlal alalam. lépp la teew da koy nangu lañ lekk bor buñ ko amee la ndax dañoo juumoon. Mm-hmm. jàpp ne faatu na te faatu. bu ko baalewut dañ koy fay. moo tax suñu yeexal loolu ñaare diir bu defan bi ñu xaar moom li cëpp bu xasee am te kenn xawti moom dara yow néew na nga déggaat benn xabaar moom waaw mën nañ ko miraas waaw moo tax bu fekkoon moom moom bi muy dem ku mu war a doon daa faatu ab cëram dañ ko fi bàyyi parce que bàyyam faatu ginnaaw buñ miraasee bàyyam dañ fi bàyyi cër boobu buñ xaaree mu du taamir ñëwut ñu génne ko ci miraas moomay miraasaat ko ña ca des ñoo desoon ñoo ñu jël la bu feeñee jëlale ko lool bokk na ci li ñuy li ñuy aj ci loolu nga xam ne moom mën na fee jóge ginnaawam eh, ay doomam wala baayam faatu fi te kenn xaw ci moom dara bu ñuy miraas kooka wàllam day ko rek ci barab. jërëjëf mbokk mi dafa mu ne kaamil bi nga xam ne daal dafa manqué donte ay benn baat la wala ñaari baat ndax dana dagan tamit sax ci ki yorul njàpp mu di ko laal. ah déedéet sëñ bi ndax benn baat ak ñaari baat moom te teew tamit teewal man moom. Mm-hmm. waaw mm-hmm. daanaka solo si tax bu ñuy wax ki ab jukki ab xaaj wala yu mel noonu tax ñuy wax mhm. waaye lu ñu naan kaamil ba benn baat ci manqué moom du doyut ñu ne du kaamil mhm. loolu téew ko nekk kaamil moom jërëjëf bokk bi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci ki nga xam ne dafa yar daaray alquran xëy na ñoom suñ daara yi lay wax ñi nga xam ne borom internat yi nga xam ne léegi eh, wala sax université bi nga xam ne léegi da ngay ñëw indil sa doom eh, biskarim wala nga indil ko ay keesu miskit mu ne daal gis na ne eh, daf koy séddale gone yëpp yam ci donte dana gis ne dana xaw a gën a jox euh, euh, borom miskin mi lu xaw a ëpp ndax noonu muy def dana dagan ci euh, sëñ daara bi di ko def di jël ki nga xam ne daal bàyyam da ko indil mu koy séddalewaal ñu ci des ñu yam ci ndax loolu dagan wala det waaw bu ko matalee de mu baax su ko matalee matalee nga xam ne daa bokk ci tëralinu daara ji lu fu waay indi mhm. dong yow koy bokk nga xam ne ni bàyyi diw di indee noonu la bàyyi diw di indee mhm. yow sa bàyyi indi tey ñu séddale bàyyi ëllëg keneen bu ëllëgee bu ñëwee ñu seddalee loolu bokk na ci solom dana jàngal gone yi bokk maanaam bokk na ci liggéey bi daara liggéey ci ak njaboot jàngal leen bokk fii ñi yaroo ci dara dëgg-dëgg kenn ñi mu ci lekk aw ñamam dong te foofu loolu ñi nga xam ne seen indi dara nag moom boobaa nag ñooñe ñoo war a xam ne comme ñeneen a ngi indi di jàpp say doom di xew war ngaa waroon doon am yembar bu des ci ginnaaw nag war ngaa góorgóorlu di yóbbu dara ndax bu dul dara it sa doom gis ne waxtu ne mi ngi lekk ci ñamu moroomam yooyu te ci ko dara kersa la doon ci moom hmm. bu dee ko amul nag yàlla ko nattoo ndax yu mel noonu loolu mooy njëriñ ñoo xam ne adduna ni la demee ñenn ñooy am di yóbbaale ji ci des hmm. loolu bu loo xam ne day tax bu ëllëgee xam nga ci daara naka jekk partagé fi lañ xamoon tuule hmm. joxe kull ci adduna ci daara sëñoo ko lekk yow dong loolu ab yar bu am solo la boo xam ne beru lekk du am gis ko ci daara yenn it dongo yu mag yi ñoo daan yelwaane gone yi mënta yelwaan dañuy toog buñ dikkee ñu wut bool bu mag sotti ci yelwaan jëpp ñëpp bokk lekk day foofu soriwut loolu ndax fee indi fii xale bee dem wuti waaye bu dikkee bokk ak gone ndaw yi gone bu ñu dañuy fay bor bi ndax ñoom dañuy yelwaane fekk seen rakk ñëw fa mënuñu yelwaane ñu bàyyi leen bu ñu dikkee yelwaane jox leen loolu lu am solo loo xam ne li ci am solo rek mooy na na maase ndax lu fay mën a indi nag noonu lay demee boobaa nag booy jur bi jàpp naa ne bu jàpp ne dañ koo tooñ waaye na jàpp ne indi ñam woo xam ne sa doom lekk na ci doomu jàmbur lekk ci day nekk ci aw yiw dëgg la loolu moom ku ko day tax ngeen ko ful sax hmm. jërëjëf euh, bokk moomu kon laaj bi leer na kii dafay laaj mu ne ndax dana ki nga xam ne dafay julli euh, ki nga xam ne ab xelam neexut maanaam ab dof boo xam ne moom du jëfandikoo du set dal maanaam su su demee wanag waag su kii lu mën a def rek su bu xayta wala mu saw wala lu mën a def rek moom du laab ndax kooku su ko laabee day tax julleem yàqu wala déet maanaam ki nga xam ne daa sobewu dal su laalee ki war a julli ndax dana jeexital dara ci julli ki nga xam ne moom sobewu waaw li tax ñu jàpp ne julli yàqu daal moo gis ne jëm ñu sobe si tax hmm. leer kon lii ngaan waay la wala lii ay dem àll la hmm. taq mu taqal ko hmm. waaw mu day dagg su fekkee di waxtu wayaat na te mën ko raxas waaye jàpp ne waa ji kat ba xoowuta laab kon mën naa am taq na sobe duñ ci sukkandiku waaw na ko waaye loxo boo xoolee loxo fi mën naa bañ a raxasu ak ndox mu la waaye fi ne jëmmi sobe mën naa bañ na ci yaram loxo bi mën naa set fekk laa bugg sobe nag atteb sobe nag du taqe waaw ah, tey bu sa loxo taxoon sobe nga dem raxas ko saabu mhm. set na de waaye laabut mhm. waaye nag ñàkk set googu mun ñàkk set googu mënut a wàll keneen boo ci téyewoon dara du tax ñu ne waa ji fi mu téyewoon wala xasit mhm. fi des jëmmi sobe nekkatu bu fekkoon nag sobe si daal ni ñëw taq la suba faaw nga raxasi ko door mën a julli jërëjëf kii mu ne dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafa faatu bàyyi kër gu yaatu goo xam ne lenn li dafa tàmbali woon di tabax daaray alquran ju am solo waaye nag lenn ci ak njabootam ñoom de gisuñ ne loolu dafa ràgg dañoo dañoo xemem ngir bëgg daal ñu seddale leen kër gi ñoom ñëpp mu ne léegi ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy miraas wala ki nga xam ne mooy seddale dafay fekki eh, daaray alquran jiñ ki woon wala day day fekki njaboot gi liñ bëgg li ñu war a njëkk lijjanti mooy ba muy tabax daaray alquran ji lu mu waxoon hmm. ndax da koo jàppe waqfu bu dee wax wax fu kenn du ko miraas mhm. da ko jàppee wasiya bu mu dénkaane woon nañ ko def mhm. te mu xaj su sulusu alalam su bàyyi kenn du ko miraas mhm. bu dul loolu nag nga xam daa mel ne ci këram la def daara joo xam ne jàppewu ko wax kon bu faatoo nag alal la yoo xam ne nii dañ ko war a miraas ku bëgg mu wéy doon daara jënd ko wéyal sa yéene bàyyi bu ko defee ña ci des moom nga xam ne ñoom seen wàll lañ soxla jox seen jox seen wàll dem waaye bu leeree nag ni moom waqf la ko dafa ne lii kat boo fi jógee kenn du ko doon moom waaw moom kenn du ko doon jërëjëf mbokk mi dafay laaj eh, ndax dana dagan xëy na ci laaj bi laaju murid la mu ne eh, ci ci taalibe bi mu mu jël rek ab lim ci xasida yi sëriñ bi eh, ci ay yoo xam ne ay tasbihaat la wala ay ay salawaat jël ko rek maanaam def ko wér doom daal maanaam te te te amu ci ndigalul benn sëriñ ndax loolu dana dagan wala ndax dana dana dagan mu jël li ñuy wax musabaatul asri jëlal ko boppam di ko jëfandikoo te kenn jox te kenn joxu ko xam nga sëñ Abdoulaye tasawuf mhm. dañuy wax ne lu fa waaye def na tegu ci ndigal mhm. laa moolu sëñ bi laa tafalu shay'an bi ghayri izni fal iznu sartun fi qabuli fi qabuli sa'al ñu nangul la mhm. moo tax yu mel noonu lépp loo ci def ne tegu ci ndigal dina am nga kilifa moom sàkku ci mu jox la ndigal bu dee wérde moom wérde sëñ daa joxe wérde joxe ci ndigal booy jëfandikoo wér jëfandikoo wér du hmm. yee nag ay ahzaab la ay ñaan la ay salawaat la hmm. loo ca loo ca bëgg def mën nga ko tànn di ko def ci am solo mooy danoon loo mën a saxal te mën ko wéyal hmm. amaa musabaatul asr wér di la woo xam ne moom dañ ciy am ndigal boo bëggee mu doon jaamu yàlla gu gu dëgg-dëgg boo ko doon def nii rek ci amoo ci ndigal nag mën nga am tuyaaba nii waaye dëgg-dëgg du doon lim doon ci yow faaw nga am ko jëlee mu am sanad bu jokkaloo ci borom ba ci borom wér du sëriñ bi noonu la demee kon xaside yëpp li ci gën dal lu ci waaye def ci am kilifa na dem tàggu ci kilifa mhm. lam ko jox ndigal mu xam loolu mooy ndigalam mu fexe koo sàmm boobaa yaakaar ci yiw àddina ak na ko ci mhm. jërëjëf euh, dool na ci ne ndax ndax bu fekkee ki ko jox wirdu wi tamit dafa dafay bàyyi ko dafa faatu dafay dem yeesal ko ci keneen wala dana ko doy jox ki mu ko joxoon waaw wirdu moom bu ko xasee joxe mat na yeesal nag leneen la mhm. mën na fe ne bu nag yeesul maanaam yeesal bokk na ci amaat beneen sanat nga ne kat wér day man jëloon naa ko ci sëñ diw mu jëlee ko ci diw mu jëlee ko ci sëriñ bi hmm. ginnaaw bi jëlaat naa ko ci sëñ diw mu jëlee ko suñu jëlee ko sëriñ bi loolu ay dëgër ak barkeeru la ay teewut jëloon nga wér ba hmm. jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne euh, lan mooy attëb ki nga xam ne daal dafay jël di dafay topp di seetaan film yi nga xam ne film yu bon yi la yi nga xam ne day wane ay góor ak jigéen yuy sëy hmm. maanaa ba di ca yëg boppam mun na ko laajoon laaj bi mel noonu ci ginnaaw mu ne kii mu ne film bu muy seetaan ndax loola muy def dañ koy tuddee njaalo wala déet waaw njaalo bët la. njaalo bët. Mm. sax na ci xadis yéen yàlla Muhammad alayhi salaam nee na bët dana njaaloo. Mm-hmm. xool lu mu war a mm-hmm. te it dana jur njaalo bu mag bi. Mm-hmm. ndax yow ñaawteef yi koy xool bu yàggee dana la tax a jëfaloo ñaawteef foofu. te ay bàkkaar yu rëy la yoo xam ne ci bàkkaar yi mag yi la bokk. bi di ko war a lu jur bàkkaar wala mu di ko sabab wala muy tax sëg ngam woyof. mën naa moytu te yooyu ki la bokk bët bu yàggee xool lu xaraam rek yëpp woyof fi moom. mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne euh, dafa jiite mbooloo ci jullik timis léegi nag euh, bi mu demee ba ci ñaareelu rakka bi mu jóg au lieu mu toog mu jóg taxaw ma ma ma maanaa maanaa jataayu taaye ju njëkk ji dal euh, dafa jóg ba taqalikook suuf si ñu sabal ko mu delluwaat nee na bi mu noppee dafa sujjóot ba'da salaam mu ne ndax léegi e, julli gi dana wér ci loolu mu def wala wala déet waaw bu fekkee ne xam na ne ba'da salaam a ko waroon de mu fàtte ko ba sëlmal hmm. day soppali ku nekk baax de salaam maa nit ki kon ra taaya ji digg bi la fàtte la fàtte bu fekkee dem na ba jóg taxaw ba woom ak ay ay loxoom tàqaliko suuf même bu ko fàttalikoo du ñëwaat hmm. day wéy te sujud xabla salaam xabla hmm. salaam na boo ko fàttee ba sëlmal da koy sopp baax de salaam bu dee ci saasa boo ko fàttee ba sëlmal ba génn jàkka ja dox lu yàgg dool ko fàttaliku dañuy xool li nga waroon a li taxoon nga war a lu mu doon bu ma tey ñetti sunna julli gi yàqu na su matul ñetti suñu jégal lañ ko mhm. kon moom fekkee ne so soppi na ko ba'da salaam baax na loolu lañ ko sant xam mhm. ne daa daa waroon sujjoot njëkk muy sëlmal mu fàtte ko ba sëlmal daa mhm. daal di sujjoot ci saas rek dafa dafa dellu dafa dellu ci ba noppi daal di ta dafa tàqale ko ba noppi dellu ci jataay ba daal di sujjoot ba'da salaam waaw ah, bu dee loolu noonu la war def ndax loolu mu def doole la moom warutoon dellu warutoon dellu de kon bu delloo nag toog taaye jógaat yokk na ci julli gi lu ci bokkut dëgg la kon sujjoot ba'da salaam sëriñ bi bokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ki nga xam ne euh, dafa tukki wàññi julli muy jiite ki nga xam ne dafa dafa dafa sax nekkul ci tukki waa loolu di dagan na waaye nag dañ koy sib ci masab bi mm-hmm. ñu wax ne musaafir buy jiite ab muqiim dañ koy sib ndax yéene yu wuute yi mm-hmm. kii de yéene wàññi kii yéene matal waaye nag moo tane moo tane musaafir roy ci muqiim mm-hmm. moom lañ gën a sib moom uh-huh. ndax boobaa musaafir bi day bàyyi sunna liy sunnaam moom mooy moom wàññi julli wàññi julli gën ci moom matal ndax mooy sunnaam uh-huh. te bu royee ci mu xiim du sañ a wàññi waaw daa war a matal suñ xaar bañ ak boobaa nag la tane foofa uh-huh. musaafir bi jiite ndax boobaa kenn ku ne ci ñoom day nekk ala sunnati kii bu julee ñaar ak sëlmal ñi fi ñii ñi nekkut ay ay musaafiroon nekk ñu dëkk ci dëkk bi ñoom jóg ak kenn ku ne àggaleel sa bopp waa ñëpp kii ñi julli nañ sunnaam ki julli nañ sunnaam bu ñu demee ci jàkka joo xam ne maanaam ñoom musaafir yi dañ faa jaar sañ nañoo ber seenub julli kenn jiita leen wala li gën mooy ci gën mooy ñu waa nañ génn jàkka ja bu Malik mhm. euh, dañuy wax ne jàkka joo imam ratib bu mhm. ilimaan ji xesee ñëw ba julli julli mbooloo dañuy tere ko fa julliwaat mhm. donte nag julli nañ ba dem waaw donte nag donte nag bu dee ay gan bu dee ay gan moom naa ndax mbir mi li tax ñu di ko wax dëgg-dëgg loolu buñ ko nangu woon ci jàkk yi dëkk jàkk ji mën naa am ñaari ilimaan su waaye ñuy xaar bu ñu julliwat ba dem ñu ñëwaat julli bu imaam xasee julli nekk ba noppi bu fi kenn julleetu julli mbooloo kon ku ñëw na nga julli yow kenn su ngeen bëgg julli mbooloo na ngeen génn ba ci ba mu des jàkka yi nga xam nag amul imaam ratib comme jàkka yi ne ci jaay jaay jaay yenn yi ak yi ci kaw yoon nga xam ne mbooloo mu ñëw rek ñu àndandoo julli dem ñooñu moom waxtu di mën nañu fa julli julli mbooloo ndax lañ cee ragal fee néew foofu bu dee jàkk ju ci barab ay nit ne fa bu ilimaan xasee julli waaw bu dee gan ñoo xam ne dañu faa jaar jàll ñoom mën nañu ko nangaloo ndax ñoom lañ cee ragal néew ci mhm. bu dee foo xam ne boo ko defee mu indi fitna it benn kenn kenn wala ngeen génn jàkka ji julli julli mhm. xam naa laaj bi mooy suñu laaj bu mujj euh, bokk mi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci doom muy tere baayam su ko gisee muy jëf-jëf joo xam ne jëf ju baaxut la di ko tere ba ba ba ba béral tere gi wala wala yooyu waaw xam nga ñaari yëf la al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar dañ ko santaane mhm. waajib la far maanaam lu war la kenn ku ne kem na ko mane hmm. waaye nag day bokk ci sarti tere hmm. bu mu jur lu yées bu àggee ci di di di gëdd bàyyam wala mu di ko kii nag loolu da mbokk la hmm. te loolu ci kabaayir la bokk su waa moom na na fexe ba gis moroom bàyyi mu moom ne ko bàyyi kat day def nangam nangam bëgg nga wax ak moom jaar feneen waaye ñoo ne ko wax ak moom loolu moo gën na ba mu dañ waaye nag bu ko mënee jaar feneen moo gën ndax bu anam goo xam nam day dog mbokk loolu day moytu ab safaan daf safaan bu ko yees mm-hmm. loolu jar na bàyyi xel mm-hmm. kon ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk yi ak jërëjëf suñu bar xanaa di sant baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon yónnee seen laaj ñaan yàlla dafa ñu dégg ko topp mm-hmm. di rafetlu jataay yi ndax lu am solo la ñu ko faral di waxee ab jullit daa war a bàyyi xel diineem yàlla bëggut ko koy làmbatu dee ko jaamu ci nii laa ko yëgee wala nii laa ko mane wala nii laa ko gisee waaye fastaqim kama umirta loolu lañ joxoon ndigal yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nag yu mel nii dana tax dimbalante la euh, loo xamul laaj ko euh, ñu jàppalante ci ba li ñuy defal yàlla mën a jag ñu mën ci yaakaar ngërëmul yàlla ak njëggalam ak yërmande bu ëllëgee yàlla na ko yàlla boole defal jërëjëf sëriñ bi waa lu am solo nga wax maanaam amul lenn lu nit ki di jëfandikoo ci àddina te lislaam rotalu ca lam ca atte kon jullit bi war na lu mu rek lu muy def ak lu mu mën a doon rek mu fexe ba xam la ko ci diineem sant ngir mu mën cee jariñu te du ci am bàkkaar kon yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom gën la defal wér ak kattan di sant it bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp yépp ci MKTV wala GMT ak support yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi te di ko tesaare ak ñu koy partagé ci TikTok yeeg yëpp ñoom ñëpp it euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndox yaatal xam-xam la di sant bokk yi nga xam ne it ñooy yónnee laaj yi ak di yittewoo émission bi ci ñaan yeeg yëpp di sant sëñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi sëriñ bàcc ba di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataay eh, bu gàgganteku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam